billahi samil alim min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulillah nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaxfiruhu wa naudu bihi min sururi anfusina wa min sayiaati acmalina man yahdillah fala mudilla lah wa man yudillil fala haadiya lah wa ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokk taalibe yi waa daaira Majmahun Nurayni ñoo dellu siwaat fii ngir seen bis boobu nga xam ni sëñ Saliou Mbacke radiallahu anhu moo leen ko joxoon tudde ko bintu bisub sant ak ñaan yàlla ah ci ndigalul Serigne Birane Diop nag di jëwrunu daayira bi mi ngi nii ci ginnaaw ci ndigalam lañ jëlee kàddu ak Serigne Moussa mi nga xam ne mooy secrétaire général bi moom it mi ngi nii feggoo ak ñun ak mbooleem kàngami daayira bi ñëpp ñu ngi ni toog ngir waajal bis boobu kon ñun duñu guddal dañu jël kàddu gi jox ko sëñ Mamour bu ko defee mu jàllale li mu war a jàllale bu noppee am na ñu feggoog ñun ñoomit ñu jox leen kàddu gi ñu jàllale li ñu war a jàllale ñu ngi woo ñëpp nag ñu xam ne bis bi ñun dañ koo fonk. kon du ñu guddal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu jox Mamour euh, kàddu gi mu gaaral li mu war a gaaral. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaam ala rasulillah barkeb cheikhul xadim waxtasimo bi hablillahi jamian yaa rabbi ajal muridina maha fi isnikal asina wa samna ajmaha mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baalu ak di leen ko baal di ñaan suñu borom boole ñu jéggal di santaat bu baax sëñ baay Mor Xulle si ubbi gu am solo goo nga xam ne def na ko si bis bi nga xam ni moom la ñuy waajal te sëriñ Saalihu Mbàkke yàlla na yàlla yokki leeram taas ñu si barkeem joxoon nañ ko waxoon ni nañ ko def bisub ñaan ak bisub sant yàlla ñu dolli si bisub fàttaliku Serigne Touba xaadim rasul jàmbaari lislaam ja bis boobu nag ñu jàpp ko ren eh, dimanche 24 décembre 2023 war koo defee fii si Medina Fall wetu école bi nga xam ne moom lañ duppee maam Cheikh Ibrahima Fall bis bi nag ren mooy 23e édition bi waaye dañ ko duppee kenn si mag ñi nga xam ni ñoo àndoon ak Serigne tubaa xaadim rasul di ko jàppale si liggéey bi muy Serigne Mbacke Bousso. di jàmbaari lislaam di jàmbaari yoonu murit di mbokkum sëñ Tuubaa ma moom lañ duppee bis bi ngir jàng ay jeexital si moom kon bis baa ngoog le 24 décembre incha allahu rabbi lay doon ñoo ngi koy yëgal mboolem mbokki julit yëpp rawatina mbokki taalibe yi incha allahu rabbi kon bis ba nii lay tëddee bu ñu xëyee incha allah si dimanche gi dinañ fa diggante 8 heures ba 13 heures 45 dinañ mottali limu kaamil bi nga xam ni moom la mbooloo mi waajale woon bis bi muy ñetti kaamil dinañ ko fa jàng mu. Euh, fekk si fukki kaamin ak juróom yi muy ñaa fukki kaamin ak ñaar fukki kaamin ak juróom muy ñaar fukki kaamin ak juróom-ñett nga xam ni at mu jot moom la ñuy jàng ngir waajale ko bis bi waaye tamit ñaar fukki eh, tay suru asir ak juróom-ñett yi nga xam ni moom tamit moom lañ toftal si kaamin yi ginnaaw njàng moom dina ànd ak njàngum rajas ak njàngum kuréel ba 13 quarant cinq diggante 13 h cinq ba li nga xam ne mooy 15h dinañ dallu julli xewlu ginnaaw bi ñu dooraat liggéey bi ak njàngum xasida ak kuréel yi nga xam ni ñoom lañ invité si bis bi xëy na jaruñu leen lim waaye kuréel yu nekk si biir dëkk bi la bu ko defee diggante 16h45 euh, ba 17h moom tamit dinañ euh, jooxal li nga xam ne mooy waxtu julli tàkkusaan bi ginnaaw waxtu julli woowu dinañ wéyalewaat liggéey bi ak njàngum kuréel ak kuréel yi nga xam ni ñoo nekk si biir dëkk bi waaye kuréel gi nga xam ne mooy daayira Majmahun Nurayni kuréel 2 ñoom tamit dinañ fa feeñal seen yéene waaye tamit kenn suñu mbokki taalibe di Baye Ousmane Diop moom tamit dina feeñal yéreem yéeneem si liggéey bi ak njàngum mi nga xam ne mooy njàngum rajas diggante 18h ba 19h dinañ def li nga xam ne mooy waxtaan def conférence si dund ki ki nga xam ne moom lañ duppee bis bi di Serigne Mbacke Bousso mën a jàng ak dundam ay jeexitalam si dundam jeexitalam si dundam gi nga xam ne dund nga ko muy dund gu màgg loolu waaye tamit lenn si ay jikkoom. ak lenn si xam ne ay réalisation la ngir ku fa ku fa teew rek mën a jàng si ki nga xam ne mooy Serigne Mbacke Bousso loolu nag kenn si njabootuk ñi nga xam ne ñoom lañ duppe bis bi di waa kër Serigne Mbacke Bousso ñoo koy def ginnaaw bi incha allahu rabbi dinañ jëlaat kàddu gi jox ko ñi nga xam ne ñooy kilifa yi teew si jotaay ba muy cérémonie officielle bi ku si mel ni jëwriñ ji ak ñi nga xam ne mooy pré kii mooy président d'honneur bi ak ñenn si jëwriñ ya teew sa jotaay ba bu ko defee ginnaaw bi dinañ jox ki nga xam ne nag at mu jot mooy def tomb bi nga xam ne mooy tomb bis bi muy oustaz Mbacke Boussa Niang war a waxtaane lan mooy taxawaayu doomu réew mi si biir réewam maanaam le role du citoyen dans le développement de son pays kon loolu moo war a doon li nga xam ne mooy mooy waxtaan wi oustaz Mbacke Boussa Niang war a def diggante vingt heures ba vingt deux heures dinañ tëj li nga xam ne mooy liggéey bi ak njàngum kuréel ak kuréel daayira Majmahun Nurayni kon mbokki taalibe yi loolu mooy bis bi ñoo ngi koy fàttaliwaat bu baax a baax le 24 décembre lay doon fii si Medina Fall si wetu fi nga xam ne moom lañ école bi nga xam ne moom lañ dëppee maam Cheikh Ibrahima Fall kon dañuy jël kàddu gi jox ko oustaz Baye Mori mi nga xam ne moo topp si sëñ Birane mu woote si kàddu kulifay kon oustaz bismillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim barka cheikhul xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbooleem fu waay nekk di dégg suñu kàddu wala mu ñuy gis ñoo ngi koy nuyu nuyu jullit ak mbokkum jullitam di ko ñaanal jàmm ak xéewal ak barke yàlla na ko yàlla boole defal ñu ko di jël ay kàddu ci turu jëwriñ ji Serigne Birane Diop di fàttali boobu nga xam ni Serigne Saliou Mbacke radiyallahu taala anhu moo ñu ko joxoon wax ni nee ko def bisum ñaan ak sant ñu ñu nit ñu yokk ci bisub fàttaliku Serigne Touba Khadim Rasoul fàttalikoo ko it ñu boole ci ña nga xam ni ñoom la àndaloon. di liggéey liggéeyam bu réy bi ba tey ñun ñu mën cee ba jariñu kon ñoo ngi ci woo mbokki jullit yëpp ci ndigalu Cheikh Mountakha Bassirou ci ndigalu Serigne omor Bousso mi nga xam ni mooy xalifa Serigne Mbacke Bousso mi nga xam ni moom lañ duppee bis bi ren dem ba ca moom mu yëgal mu def ci alalam def ci ak ñaanam daan ñu ciy gën a ñaaxaat kon ñoo ngi koy woote mboolem ku yaakaar Serigne mbàkke Bousso rek nga jàpp ne bis boobu moom sa bis la. waaye ci ndigalu sëriñ Fallou Fall nga xam ni moom mooy président dënoodu daayira Majmahun Nurayni ak mboolem ñi mu ko àndal ci liggéey boobu suñu tuddee suñu baay Malick Wade sëriñ Fallou Diop ñoo sëriñ Ibrahima Guèye nga xam ni ñoom ñooy kilifa yi Majmahun Nurayni ñoo ngi di woote it ci ndigalu sëriñ Cheikh ture nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Salih Touré di ab xalifaam di woote it ci ndigalu sëriñ Amdi Lo moom mi nga xam ni mooy jiite Madina gi ngi ñuy defee bis bi sëriñ Fallou Lo imam sëriñ Ibrahima Guèye waaye sëriñ Assane Baan mi nga xam ne moo fi nekkal mboolem ku yaakaar sëñ bu Buso ci biir dëkk bii di di biir Thiès di mboo woo mboolem kuréel yi nga xam ni it ñoom lañ bokkal liggéey bi ñoom moom dañ leen koy fàttali ndax naka jekk ñu nag ñoom ñoo ci yem daanaka ñoom ñoo ñu siy man ci wàllu taxawaay ci wàllu jëf saa boo wootee gis leen soo laajtee ñu jox la seen alal ñooñu nag ñooñu ci tudd suñuy mbokki taalibe muy waa kuréel safar sëriñ Boubacar Diop nekk sa bopp ba waa kuréel lamp it ci woote ci ndigal sëriñ Abdoulahi Bey Majmahun Noreyni ñoo ngi woote ci ndigalu Serigne Ndiaye Guèye Majmahun Noreyni bu Madina Fall seeni Xaarim Fall jiite ko ak Majmahun Noreyni élèves et étudiants. mouvement des seen jeunes Tidiane Medina Fall ñoo ngi leen woo ñoom ñëpp ci bis bi naka jekk ñun ak ñoom ñoo ko daan ànd ndax suñ leen woowee daan nañ ñëw. daan nañ jox seeni matériel daan nañ teew ci teewaay yu rafet ndax li ñu bokk di ko liggéey ñun ñëpp ñoo ko ci bokk taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wala udwan ñoom ñëpp ñoo leen di woo ci bis bi di leen ko fàttaliwaat bis bi di dëppoog dimanche le 24 décembre ñu koy defee fii den ak école Sërif école Maam Cheikh Ibrahima Fall ci Madina Fall ñoo ngi woo ñëpp ñaan suñu borom subxanahu wa taala képp koo xam ne dugal na ci ñaqam wala mu teew ci lépp lu Serigne Touba séddal ëllëg yàlla la ci dara ump barke Cheikhul Khadim ñoo ngi jégalu kàddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi azza wa jalla suma salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaai sayidina wa mawlaana muhammadin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw biñ musuloo ci seytaane tàmbalee ci turu borom bi subhaanahu wa taala sant borom bi subhaanahu wa taala julli ci sang-sang yi yeneente bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam sant a cheikhul kaana lahu bi karamil baaxil xadim ñu ngi nuyu mbooloo mi di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoom la jàkkaar lool di ziar ñëpp di jox kenn ku nekk wàccuwaayam ya mu tollool euh, bu ngeen gisee ñu jël suñu kàddu euh, dafa am bis boo xam ne bis bu rëy bu am solo la ci ñun muy bisu cant di bisu sant yàlla waaye li tax mu gën a rëyati sax muy ki tedd ki nga xam ni Serigne Saalix mbàkke moo ñu ko joxoon radiallahu taala anhu muy bis boo xam ni ci la ñuy sante yàlla waaye ci la ñuy koy sante ki nga santale ki nga xam ne mooy ku tedd ki euh, Serigne Touba Xaadim Rasoul ñu ciy woon ak bépp jullit bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne rekk yaa ngi wax ashhadu an laa wax illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ñu ngi lay woo ci bis boobu bàyyiwuñu benn tariqa ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn waaye rawatina nag suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokk liggéey bi nga xam ni mooy liggéeyu eh, liggéeyal seexul xadim lu mel ni waa kuréel safar ñoom ñi xam ñoom lañuy àndal di dox di liggéeyal sëñ Tuuba ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn di woo jëwriñ yi nga xam ni ñoom ñoo jiite soxna yi eh, soxna maam Maram soxna maam Ami Sarr ñu ngi koy woo ak ñi mu jiite ñëpp bu ñu demee ci eh, daayira kuréel làmp ñu ngi woo soxna Xadi ak ñi mu àndal ñëpp bu mu bàyyi kenn waaye di woo eh, daayira bi nga xam ne moom mooy sopp soxna jaara ak euh, daayira tazawudu suba tazawudu sigaar di diwoo soxna si nga xam ne moo ko jiite soxna sooda ak ñi nga xam ne ñoo topp ci moom bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñëpp rek dañuy bañ a lim duñu matal waaye bu ñu waxee kuréelu safar rek ñi ak ñi mu àndal rek kon ñëpp dugg nañu kon woo nañu ñëpp bàyyiwuñu kenn di leen woo nag ci liggéey bi ngeen ñëw jàppale ñu ci ndax euh, mbooloo moo mën kenn lu ñëpp bokk dafay daal di yomb waaye di leen woo tamit ci bés bi bu ngeen xëyee ñu ñi nga xam ne mënuñoo liggéey ñu ngi leen di woo ci bis bi ñu ñëw toog ci baas bi déglu fa loo xam ni day dafay dundal seen ruu muy xasida ak julli ci yenente bi sallallahu alayhi ak njàngum alxuraan mi ñu ngi leen ciy woo muy tiyaaba ak yiw kese waaye di leen woo tamit ci bis bi nga xam ni moom lañuy waajal dimanche bi di ñëw muy bale bi ak samedi la defe naa ak dimanche muy set setal bi moom la ñuy def ci bërëb bi nga xam ni fa lañ war a defee bis bi ñoo ngi leen ciy woo ñu ñu mën a laabal bis ba laabal bërëb bi waajal ko ba mu set ndax foofu lañ koy defee ñu ngi ciy woo ñépp nag képp koo xam ne yaa ngi nekk ci Majmahun Nurayni walla sax nekkuloo ci ñu ngi lay woo ci bis boobu ci set setal bi waaye tamit di leen woo ci social bi it ci dimanche bi ñu ngi ak eh, ñu ngi ciy woo ñëpp ku ci mën a teew it mu daal ciy teew xam naa lool mooy kàddu yi nga xam ni moom lañ doon indi rek eh, suñu kéemtalaayu kàttan lott nañ lool sax nañ ngir yëkkati ko doon doon jéem rek ñu ngi jéggalu ñëpp ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.